jàkkaarloog Omar Diop moom mooy chargé de communication de la LISCA tey ñu ñëwoon pour euh, def benn lancement de registre bi nga xam ne mooy mooy mooy xal enregistré lépp li nga xam ne wàllu cancer la fii ci Sénégal ñu bëggoon rek nga wax ñu tey jii euh, registre bi lan la nar indi ci seen liggéey yéen waa LISCA waaw euh, registre bi nga xam ne moom la ñuy lancé tey ñun mbégte lañ ci am ndax dafa yàgg a nekk suñu préoccupation ndax doy yàgg nañ ko def pour registre des fumeurs taxaw au Sénégal ndax benn feebar tey boo ko dee xeex te xamuloo réellement tolluwaayam dina jafe pour nga gañe ko donc dafay natt feebaru cancer fu mu toll ci Sénégal aussi bien ci ci ci ci doomu aadama yi góor lañu wala jigéen euh, xale lañu wala mag lañu ci ban région la gën a bare xam nga loolu dafay am solo solo boo xam ni dafay tax politique bi nga bëgg a teg. pour mën a xeex cancer bi mu nekk politique boo xam ne adapté na kon donc ñun dañ ciy félicité parce que yàgg nañu bëgg mu taxaw amoon na fi sax mais dafa doxatul woon kon suñ ko naree lancé tey loolu moom moo tax surtout ñun nit dañuy ñëw teew pour euh, vraiment après à sa juste valeur euh, registre des tumeurs boobu nga a am. Euh, feebar bi di cancer fan la war a bëre sooy xayma cancer tey jii fan la gën a bëree fii ci Sénégal ak tamit ñan ñoo ko gën a yox mu nekk ñan la gën a dal feebar bi. waaw gis nga loolu pour ñu wax la ci lu exa ñàkkoon registre de tumeur moom mooy tax ndax actuellement nii euh, évaluation yi nga xam ne moom la ñuy def Globocan bi mooy le centre international de recherche sur les cancers moom moo ko teg di xayma à peu près wu dëkk yëpp euh, donc ay chiffres la yoo xam ne du exam moo tax duñ ci bëgg sori trop ndax tey dangay gis koo xam ni dafay jóge Tamba mais bu ñëwee fii Dakar bu joxe adresse adresse Dakar lay joxe mais registre tumeur bi dina régler yooyu yëpp ndax déjà fañ ko jañu sigee ca njàlbeen ga rek buñ ko xasee bu dugal ci application bi rek ni kii fii la jóge at yi la am góor la wala jigéen la donc euh, loolu souci la woon bu mag ci ñun parce que da nga naan xaj na fii la gën a bare wala cancer bi moo gën a bare fële mais amuloo woon ay chiffres réels donc tey ak registre des bi problème yooyu yëpp dina nekk vraiment un vieux souvenir bu ko defee Sénégal mën a maîtriser carrément le cancer def ci li ko war pour mu dellu ginnaaw ci Sénégal. mais ku wax tey jii cancer xalaat ndaw ñi xalaat aussi taba lan la wala wala tamit li ñuy wax euh, comme si shisha yooyu noonu yenn xeet yooyu noonu maanaam nan la gën a nan la nan la nan lay amee impact ci feebar bi cancer. waaw feebar bi nga xam ni moom la ñuy wax cancer moom cigarette dafa nekk facteur de risque boo xam ne am na ci doole trop. ndax tey ji ni scientifique yi bi ñu gëstoo cancer yu bari bu ñu defee la ñu jël ca loolu ci cancer bi yóbbu ko laboratoire dinañ gis am na ay résidus yoo xam ne ci tabac la jóge que ça soit ne yamul ñamul rek ci cancer poumon cancer col de l'utérus sax def nañu analyse gis ci ay résidus yoo xam ni ci tabac la jógee. kan bépp cancer boo gis rek am na am na la nga xam ne maanaam tabac da ciy laal daal. waaw moom daf ci laal donc tuxkat yi. ak fumeur passif yi aussi ñu wax ko parce que tey ma nekkoon ci salle bi di tox ku toxul tey noyyi li nga xam ni man moom laa sànni tamit maa ngi courir le même risque que de d'attraper cancer waxuñu nag cigarette kese mën na jox cancer mais dañu bokk ci facteur de risque yi ndax xam nga à part le cancer du col bi nga xam ne xam nañu euh, li nga xam ne moom moo koy joxe yeneen cancer yi dañuy wax dafa am ay facteur de risque facteur de risque yooyu nag dañ ci citer le tabac nga xam ne donc kon cigarette war nañ koo wàññi bu baax d'ailleurs loolu moom moo tax ñun suñu politique bi nga xam ne moom lañ doon def dinañ def li nga xam ne moom la ñuy tudde school maanaam di dem ci école yi di sensibiliser xale yi surtout ci cigarette bi ak chicha bi nga xam ne vraiment mu ngi def lu doy waar ci dëkk bi donc euh, yàgg nañ ko jël comme préoccupation voilà